يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم yàlla du xool seen forme yi xoolu seen alal yi xam nga lu muy xool fii xol bi lii ak lee kon laa loolu moom dagan na luy lii waxul dagan na de dama ne lii ak lee luy lee lii mooy xol bi lee mooy la nga jëf suñu yëree xol bi li nga jëf yàlla tax mu sell mu nangul la lee soo jëfee xol bi yàlla xool yéene ja sellul mu boole jëf ja këpp la ko dem yoonam Touba Gaz wa maa ummiru illaa li yaabudullaa la lahu din école loolu rek bilaay ki maa ko bëgg billahi ilaa ndaw maa la dama laa bëgg